bilaay Messi moom anglais la wala ghanéen la wala congolais la wala fan mooy réew. Messi. tey nga Messi Messi booy bi nga dalee bëre ba tey ji may xëy yow. Mhm. ban victoire moo la gën a neex ci sa ah. carrière jusqu'à présent mbapat ba arène. non arène wala mbapat. ba arène victoire bi la gën a neex sa carrière ban victoire la. victoire ma gën a neex. Ah. man victoire bi ma gën a neex ci arène gi moom amagu ma. ci sa carrière mbapat ba arène. xanaa mbapat. mbapat ban victoire. mbapat ma xool. benn victoire daan dem si yàlla si moom mu gën a neex. c'est ça euh, bébé Ama boobu moo la gën a neex sa carrière. wallaahi wallaahi ndax dama bëggoon a bëreeg moom. dafa prouvé ndax dama ko xam. Mhm. ba yàlla def ñu daje maag moom ci tournoi ñu daje premier tour. bëri lu neex maag moom. bi jéem bi nga ba tey ji ma mhm. ban defet moo la gën a métti sa man na waaw man moo ma a métti. sa carrière. sama carrière defet ba tey defet bi la gën a métti sa carrière ban la tamit rek. Hmm. ma daan sax xaw ma ko sax. ok mais daal boobu la gën a métti sa carrière. moo ma gën a métti. ndax dama daanu ba pare am lu ma métti. Mhm. ba tey dañuy continuer ci question réponse ah. euh, dama naan rek a sàmm mbër euh, Sénégal wërngal këpp. Mhm. kan mooy sa waykat. Sénégal wërngal këpp. waaw kuy way nga kontaan. kan mooy way ma kontaan. benn tuut tànk bi doo ko fële. Hmm. xale bu jigéen tudd Dieyla. Dieyla ko fu mu dëkk. <laughs> dégg nga wax day doo ko fële. dafa mën a way. trop fu mu dëkk. géej waay la dëkk.

ci réew mi fii. waaw rek lii jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi. réew mi fii ah, affaire de banditisme. banditisme agression agression yeeg. waaw boo ko fi mënoon jëlee daal la ko fi jëlee. dañ ko fiy mbër yaa ngi Pikine ah. Mhm. question bi ma lay laaj Pikine bokku ci. Euh, dama naan rek benn instant. fan moo la gën a nekk Sénégal. fan moo la gën a nekk Sénégal. Sénégal nga wala Sénégal wërngal këpp. Hmm. ban koñ ban quartier wala ban dëkk moo la gën a neex Sénégal. man man nag instant yii nii ah, am na am na quand même xam ne dem nga fa mu neex la. day am. Pikine bokku ci daal. Pikine na ma. dégg nga seen moo tax ma génnee hmm. ah, la gën a neex Sénégal.

arbitre sifflé génn seen diggante ka war a bëreeg moom. kon nekk au sommet. mbër yi nekk ci kaw a kaw daal. waaw koo xam ne da ngay rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante. ñu bari na. kan la ci jox ma ci kenn. te ñoom Sa mhm. da ngay rêvé ñi fekk ñu màgg. da ngay rêvé bëri ak Sa Thiès. waaw bu baax. da ngay rêvé un jour reporter bi ne attention Darzo xam sa cosaan à gauche. Sa Thiès Double Less à droite. arbitre bi sifflé na génn seen diggante. roofoon nañu Darso. Sa Thiès ñu ngi bëree. ñu ngi bëree Darso daan na ko jàll waaw amul leneen. ndax est-ce que xam nga li la yóbbu ci nimo bi Sa Thiès nekk. waaw xam naa bu baax. ndax ñoom dañoo ñëw fekk bi daanaka garaay lañ ci fekk. instant yi bëri nañu ak seen morom yëpp ba daan leen. waaw yow war a yéeg dem ci grand yi. te ñu it balaa ñu yéeg di dem ci grand yi dina fekk yenn grand yi bëri jël retraite. ñoom saa la ñuy fekk ci kaw. waaw boobaa ñoom it dañuy may suñu chance rek. Ah, ah. si c'est yaa ngi wax lu leer euh, mais benn instant euh, dañuy avancer rek dama naan euh, mbër. waaw Pikine fii nii xam sa cosaan mm. est-ce que gis nga fi ay mbër yoo xam ne war nañ mën a téye làmb ji bu baax a baax. kan gënee seen bopp rek. ci leen di soq. soq waaw waaw war a téye làmb. mën na téye làmb ji téye ko ci loxoom bu baax ak jet li jet li jàpp nga ne moom tamit war na mën a téye làmb ji un jour. baax am na ñeneen ñuy ñëw ci ginnaaw. ci suñu booy ñu ñëw waaw ñoom buñ ko téyew ñun dañuy ñëw téye ko. billaay wallaay mbër lan mooy sa plat préféré sa coop préféré lan. coop préféré. waaw. Ah. ñankatanga ñankatanga diw diw. ñank wax ko sa kaw gaa yi dégg. ñankatanga diw diw. yow la nga sa bopp. waaw xam nañu. ñanko. ñankatanga diw diw. Uh-huh. mooy sa plat préféré. waaw. lu lu a. ñëpp ñun ñii ñëpp ñu ñëpp ñii ñëpp. boo waxumaan ñii man yow wax mais yow yow la nga sa bopp instant bi mais mbër dama naan benn instant. Uh-huh. bi nga juddoo ba tey ma ak yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour lan nga dund. ban jour moo ma gën a neex. ci àdduna jour boobu lan nga dund. non man moom nag seen naa man toujours bambis bi laay dund waaw ndax man yéenewu kenn lu bon waaw ñëpp jàmm ak salaam laa leen yéene billaay man bu ma meree ñun ñi dañ koy xam wala fu ma toogee am lu ma dal dañ koy xam ndax fuñ ma fekk ma toog dinañ ma laaj lan la ndax man li ma tàmm toog mbalaganteeg booy dañuy dem sa banaan yow yaa ngi yàq xaalis bu bari da nga waroon dem géeyu théâtre

ndeysaan sam patron dafa tukki bàyyi ma ak atelier atelier wu lumb la ma bàyyi billaay wallaay daanaka dafa dem matu semaine atelier bi tàq ba jeex tàq te ñu ko nekkoon daanaka mat na bi deux millions. oh atelier wu la. menuisier man menuisier bi tàq. waaw di ko nuyu au passage ndax fu ne nii cheikh dañ ko seexal sax waaw mu ngi Brésil billaay bi tàq ba jeex tàq. Saara Gueye bi ma lay wax moom moo woon téléphone. may nelaw ay 5 heures du matin. vraiment atelier bi tàq na ma jeex tàq. du la ma daw suñu kër ba tali mag. te may yeggee samay rongañ dafa tuuru. Oh. billaahi wallaahi. valeur bu 2 millions. billaahi mais après lépp dañ koy teg ci. mais jour am nga lu la métti bu baax. naa la mu métti bu baax a baax mënu ma ci dara. ndogal la rek dañ koy nangu. Uh-huh. Mhm. benn instant dama naan Zarzo. Euh, mhm. xam nga mag yow yàgg nañu. te feuilleton c' est comme j'ai l'habitude wala série du yem ci benn épisode tey la sama premier épisode maa ngi yow ñu jàkkaarloo mais du yem ci tey lan ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy siyaaraale sama benn gaan sama benn doomu ndey da nga xamante dafa bokkoon ci man muy jibi am jibi am dafa tëdd feebar waa wallaay lu ne la doon daj ci man avant may am licence sax laa wax licence màggali nañ sax mu yóbbu mu benn kër maaraal fu ne la ma doon dugal fu ne nama ma yow xaaral ba nga am licence ba commencé beure arène mais xam nga rek bi may wacc sama combat arène bobu la fekk mu tëdd premier combat di ko ñaanal yalla suñu borom wëral cëram fëgg bopam bu mu jógaat nekk sëram nekkoon waaw ndax borom baax la dafa baax billahi wallahi dafa bëgg lam dafa bëgg lam te dafa bok ci ñun waaw dëgg la moom mu ngi dëkk fii ba Pikine dëkk ñu ngi dëkk ginnaaw raay mais toujours fi la daan yenn ba guddi gi mu ñibi xëyaatee même chose waaw di ñaan yàlla fëgg boppam bu mu juraat laa sinon loolu nuyu sama gars yëpp nag di leen gën a siyaaraat waaw di nuyu mafia bi waawul na xam ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu ay ñoom Sophie Touré ñoom ñëpp dañu sonn suñuy combat ak monsieur le maire laay jóg waaw di nuyuwaat suñu papa ji fii nii ñaan yàlla guddal fanam waaw ak giraan sama téer moo nekk nii dëggantaan dëggantaan fi ñu nekk nii moo ko moom moo ñuy ñawal ñun ñëpp ma fiyaab yëpp moo ñuy ñawal lu rafet ñu ngi soxla di ko ñaanal yàlla waaw atelier bi waaw dem saxan baaxaan daal xéwal yi di jóge fu nekk billaahi di nuyu sama waa daara tamit waa kër Cheikh Modou Kara Mbacké ñu ngi fii rek sama jëwri ñoom bàyyi bay waaw ñoom laay ñëpp maa leen di siyaar